naa la damaa yor njaboot di jigéen tey ji ñu bari képp ku ma bëggoon tey bañ nga ma ndax APR képp ku ma soppoon tey sib nga ma ndax APR ndax borom bi ngeen ma xamee ci Fuuta Tampi man fàtte ma Fatimata Ndiaye kenn xamee moon wax ju ñaaw ma dem bay wax wax yu ñaaw ah, may ma rek wax yu dépassé wax yu ëpp ba man damay pare xam na ne dañuy waxtaan rek. Mhm. xam na ne parce que émission bi ma def ak yow nii. Mhm. bii laa mas a def te du ma ci waxaat. ba damay toog man ma xam ne ne lii ma wax nii ëpp na. te kenn waralu ko président Macky Sall bëgg ko ba mu jeex tàkk. du lu ma defal du fu ma demal mosuma toog ak moom mais bëgg ak ngëm-ngëm sama sëy tas na da président Macky Sall 2009 2019 teewul ma jàpp ko. Mhm. tey jii ma bàyyi sama Fouta Tampi ak président Macky Sall teewul ma jàpp ko maa waxuma mu defal ma dara mais dama ne ko ku lay yëg. ku la safoo faale ko comme te man nag yëguñu ma dama am nag ay kilifa ma am sama pap boo xamante lu ma dugg dama koy wax mu am lu ko metti loolu ba ne ma bul def mais man dama na def conférence de presse ginnaaw suba ba tayit amaana ma def ko sama position ci réew mi ak sama position li nga xam ne mooy euh, politique jot na ma xoolaat ko nag mais Fatou tey yaa ngi wax euh, sa diggante ak waa APR bi tànkan ci biir beneen baa ngi ci biti ndax tey Fatoumata bu génnoon bii APR dina xajati ci réew mi. ndax lan ak su boobaa par rapport ak bët yi la nit ñi sénégalais xoole Fouta Tampi Fouta Weli nga ñëwaat tey ne da ngay génnaat biir APR. wuyu ma man Fatoumata yaay la jigéen la su ma neexee bàyyi APR man la APR 2013 ba tey maa ngi fa. Mhm. kenn mosuma faa gisal lu ñaaw mbaa gàkkal ma lu ñaaw ba may def Fouta Tampi maa ngi biir APR. su ma neexee ma génn APR am naa ci droit. mais par rapport ak position bi nga taxawee yaa ngi koy wax léegi que bi nga commencé euh, Fatoumata njaay Fouta Weli ngay ngay am peut-être position booy taxawee ba ci saaga yi nga xam ne après yow da ngay réccu. non man duma saaga samay wax mooy déborder samay wax ay ëpp. mais mhm. saaga wu ma. d'accord mhm. léegi ci réccu boobu noonu tey jii boo wëlbatikuwaatee génn biir APR est-ce que tey jii sénégalais yi dinañ xamati ban Fatoumata Ndiaye la. waaye xam nga nit ki. Mhm. boo demee ba xamatoo foo delu fa nga jëm mën nañu xaar à tout moment Fouta Tampi ñëwaat mu nit dégg ma ne boo xamutoo fa nga jëm <laughs> xam nga Fouta Tampi mu ngi marché ba tey uh-huh. Fouta Tampi mosut arrêté uh-huh. mouvement baa ngi marché panel yaa ngi marché mais bokkatoo Tampi ma bokku Tampi ko bokk Tampi ah yow yaa ngi weli di <laughs> Tampi de ma maa ko téye nii sama loxo maa yor samay dossier maa créé sama Tampi du keneen ku ñeme ki ñi ko ñeme woon a wax arrêté nañ ko déggatoo fen Tampi kon loolu moom wax ju yàqu duma ci wax. Mm-hmm. mais nag euh, may jéggaluwaat sénégalais bu baax képp koo xam ne man laal naa sa ngëm-ngëm. Mm-hmm. mbaa sa pas-pas tey nag danga ma may ma wax def benn révélation de taille. Mm-hmm. xëy na rëy la walla ñëkk mais du rëy du ñëkk. mooy MC Niass laay waxal. man Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. maa ñëw ba sa kanam sukk samay om ci suuf di tuubal te di la jéggalu ndax dama laa tooñ ba ci kanamu yàlla mm-hmm. te boo tooñee nangul na tooñ nga mm-hmm. te tooñ reconnaître sa tooñ baalu àq dara new ci du rëy du ay dafa réer mm-hmm. wala dafa bëgg lii wala dafa bëgg la bëgguma leen damaa toog xam ne dama tooñ du ken si yéen ko sugar sama café mba ko xorom sama jin gis nga Eva man dama dem ba tiit samam réew te man bu may bu may wax sama bop la ñëk waxal ci tiitaale ci sa bop wa parce que man amna ci part de responsabilité d'accord mais may tuub di jéggul mhm. newuma nak génn gum APR newuma ma ngi ci bir APR mais nak jonne nak mais daal tànk ngi ci biir tànk ngi ci biir. waaw jot na ma xoolal sama bopp te bu ëpp sa morom doole xëcc yóbbaale ko. waaw jot na ma xoolal sama bopp daal. mais baalu bi nga baalu.